ndekete man li may wax yëpp gisul ma mbay waaw mais mbay kii kii parce que booy bii dafa naa ne léegi dafa commencé bàyyi liggéeyam quoi eh, allo mbay waaw yow mbay xam nga ban heure a jot déedéet taxaw taxaw déedéet déedéet wuy ma ana ana produit yow booy daa doon xamal la benn affaire nga xam ko 2016 lañu wax waaw ana produit non dama lay wax rek 2016 2016 déglu ma waaw 2016 déglu kaay taxaw fi ma plus 1. égal 20. da waxal dëggantaa njaay rek bul kaf dama lay am lu ma plus 1. égal 7. égal 7 waaw plus 0 égal 2. waaw égal 2. waaw waaw plus 9 7 plus 2. si xam nga wax. waaye dama lay rek man man man xam ma la wax. déglu ma lu leer. waaw plus 1 égal 7. deux plus zéro égale deux. deux boo ko boolewul dara deux la. waaw sept yi ngay jël def ko ci deux yi lu mu lay jox neuf. waaw ah. neuf la lay jox waaw loolu moo ko wax foofu. xam nga neuf. xam naa neuf kay. ah mooy bind bi wa. boo ko dëppee. waaw mu nekk six boo ko tàllalee mu nekk neuf. waaw xam nga 2016 ban at la. 2016 bi. waaw xam nga ban heure la. ban heure la. xam la. <laughs> wax ma. xam nga la. wax ma wax ma ko de. neuf heures la. waaw. 9h chaque 9h. waaw non 9h la. 9h bu nekk 6h. waaw 6h wax nga dëgg. science laa lay waxal nii. yaa ko xalaat man xalaatu ma mbay 2016 nekk. boo tardé gars yi dañ la fi bàyyi de. waaw da ma fi man man man tardé tuma. yow ana Madaar. Madaar moom moom laa doon seet. 3 bi ginaar bi poulet bi. moom laa doon seet. mais yow ana warga saamaan. bu jaune bi ak bu bleu bi. dafa mais booy yow booy ana Stronsek. dëkk bi jógee si fenn damaa wër a wër a wër a wër bay ba xaar xaar ma woo Dieng xaar dafa mel ne yow yow yow. wóor bi eh. yow wóorul ma la si. allo Dieng Dieng ah waaw waxal Cissé wala madame Thiam nañ ana produit bi non non non non su nekkee da maa boole nit koo xamante ne jumul jumul si ay produit da nga ma koy wax. xamuñu ma ñu changé élément ñu changé benn beneen façon élément bu dul ki nga ma boole nii ki nga ma boole day jóg. demande d' explication. ah déedéet déedéet déedéet mi ngi nii di bind ay demande explication te. monsieur Mbaye produit yi génnewu ma ko si. parce que mënut a ñàkk a ñàkk a ñàkk ba échant échantillon sax mënuma koo fekk xanaa su ñàkkee si si biir di sax ñu am échantillon ah non non non non non déedéet. Mbaye changel ma plein changel ma kii kii mënumaa liggéey ak moom. Dieng kii mënumaa liggéey ak moom changel ma waay. d' accord ah, Mbaye sama yoon nekk si changel ma. Dieng changel ma. parce que 2016 lu jub laa bëgg lu leer. ñu wóolu xam nga da ngeen maa wóolu ba teg ma fii wutal ba keneen ku leer ku ma tegal parce que ne woon naa la ay italien xaw ma américain dañuy jënd émission émission bi. Oh, booy sa wax bëri na. waaw xoolal boo paree nga jël feuille bi waaw waaw. jël lii. Eh, eh, bu ma joxat sa. demande explication la jël ko. waaw wuli Dieng wuli Dieng. man mënut ci góor alors Dieng man man ma produit yi man li ma leer leer man xam naa ne strong chèque yi moom dugul ci non non non strong chèque la madaar trois lions yi bu ginaar bi. bu yàpp bi ak bu bu jën bi. xam nga fan yi nga ma soxoree. waaw mais bu ko gars yi bëggee lu ñu ko war a wala léegi di am xaalis léegi ñu may solo ah di ma génnee bu leer nga ma soxoree. di ko ah, lay woo ne ñu ngi di la annoncé am na benn coro mbay bu fa Layla Aydara la ay Aydara la mu ngi nii lay mu ngi nii foo yóbbu produit yow foo yóbbu produit mbay foo yóbbu produit mbay foo allo foo jaar mbay foo yóbbu produit mbay foo yóbbu produit. foo yóbbu produit mbay mbay foo yóbbu produit mbay ana produit mbay ana produit ana madaar istoo ana fu eh yow mbay mbay mbay da ngay jaay léegi mbay mbay